mbokk yi seen rubrique euh, li ma soof si réew mi li ma soof bokk na si El sekk mi nga xamante ni moo jóg ne wooy yaay day nekk maire bu Thiès El Malick Seck ku ko xam Face Dakar moo tax nga xam ko te Face Dakar moo nekk site internet bi nga xamante ni moo gën a bon si site internet yi nekk site internet bi nga xamante ni yàq jeunesse bi la fi nekk site internet bi nga xamante ni du ah, wane lu baax kooku nag borom tey bu jógee fëgg dënam na day jël mairie bu Thiès loolu mooy yab Sénégal yi loolu mooy yab waa ku mel ni El Malick Seck waruñu ko bàyyi mu nekk Thiès sax di jël parole bay wax naan man ñi nga xamante ni candidat lañ si élection euh, locale yi man maa ngir jiite li nga xamante ni mooy euh, mairie bi loolu mooy yëpp waa Thiès rawatina Sénégalais yi ku mel ni El Malick Seck ak ñu mel ni ñoom ñooñu dañ leen war a wax leen seen bopp El Malick Seck lañ ko war a fàttali démbam na ko visiteel si site bii di Fès Dakar lu bon loolu sa nekk ak vision bu bon bi nga xamante ni moo tax mu sos Fès Dakar vision bu bon boobu tey bu nekkee maire Thiès tey euh, jeune mu nekk Thiès tey bu la neexee nga taxawal site bu mel ni Fès Dakar te loolee day yàq mbon yéen laay waxal yéen waa ko ko maanaam vision bi mu am ba taxawal Face Dakar loolee kese lay indi foofu Thiès caga jaag lu bon dina fa gën a jaaba jonge wax na leen lu leer nag